disparu. Mais c'est un fonds de commerce. Tout le monde y gagne. Il y a ceux qui perdent la vie et d'autres qui gagnent plein d'argent. Quand on te dit 32 000 personnes font partie, combien de riches on a fait Combien d'immeubles sont issus de ces richesses Et quand on sait que l'essentiel, affaire Yoyu, se passe à Dakar, parce que c'est à Dakar qu'on compte, dans les villes principalement, mais c'est Dakar qui prend la majorité de toutes les constructions, on se pose des questions. Mais il y a beaucoup de questions à se poser. Je pense que c'est l'approche qui change, qu'il faut revoir. La première approche, pourquoi nit ñi dem xam nañ ko bu demee en psychologie man lu ma wax sociologie la confiance en soi le leadership John Fitzgerald Kennedy a dit ne demandez pas ce que les États votre pays peut faire pour vous demandez-vous vous ce que vous pouvez faire pour votre pays quel est le Sénégalais qui se le dit est-ce qu'on ci wolof nga wax ko nan. maanaam bu leen laaj dëkk bi lan la war a mën a def pour yéen. Mhm. na ngeen xool yéen lan ngeen mën a defaral seen réew. ñu xool xale yi lu ñuy topp du dara lu dul matière première maanaam suñuy dëkk bu ñu ne bu ñu jëm dëkk yooyu réew yooyu seen suuf si suuf. suufu seen tànk dara new ñoom ñu riche si kaw suuf kon xel liggéey ñu ñëw suñu dëkk suufu suñ tànk népp la fa ne mais ci kaw ñu pauvre donc ñun la kes ce qu'on peut faire pour son pays <laughs> donc ñun la c'est une question de comment on voit les mais dañu nax dañu nax di ñu te xamuñu ñun ñooy kan DER dafa am loo xamante ne touché nañ fi ay approche mais moi ça me surprend pas wax naa fi gisaguñu dara je l'ai dit combien de fois ba muy ne quand j'ai vu deux mille personnes ou plus de deux cent mille un million de personnes sortir célébrer une défaite il y a aucune lecture psychologique euh, anthropologique et tout ça rien on est resté dans l'émotion mais quelqu'un a dit que nous étions émotifs ñu saaga ko mais nous sommes émotifs. Il suffit de voir nous, comment on se comporte. Le mois le jeu, ce, ce mois jeu qui ne repose que sur un affect, l'émotion. cest dire qu'il y a quelque chose, il faut que nous toquions et ça va beaucoup plus loin que ça. Je vais parler d'émotion, euh, de l'émotion, comment dire hein? Émotion, non, okay, okay, okay, tu, tu, tu, waaw émotion mooy maanaam looy yëg. sa yëg-yëg sa yëg-yëg dafa am yëg-yëg loo xamante ni fii lay jógee intelligence émotionnelle. muy ah bon ah, non man je suis donc. Ah, non j'ai le ah, mot de. non non non. waaw lan mooy non l'émotion provient du sentiment. waaw d'accord lan mooy émotion kon. je ne sais pas. mais yëg-yëg donc ma kon ma jàpp si émotion. yëg l'intelligence émotionnelle mu am ñaar. d'accord mu am loo xamante ni fii la kaddu boo ti wax si ñaar yi a pàcc lay laal benn pàcc bi muy xol ga beneen pàcc bi muy xel ga. ñaar ñoo rek mën a laal ñun suñu waxin lépp xol la. xel ñu ñuy wax ni yëpp xol ma ne sànq réguli euh, migration irrégulière ñaata euh, irrégulière ñaata immeuble ñoo fi ñoo fi judd léegi ñun ñan lañu am pour nga xamante ne ay kuréel pour ay enquête financière pour topp à la trace xaalis bi fu mu jógee ak fu mu jëm kan moo am di jaas kan moo jàng jàng loolu kan moo ko jàng Est-ce qu'on a des spécialistes de l'enquête financière Est-ce qu'on en a formé Est-ce qu'on a mis les moyens qu'il faut pour que nga xamante ne ñoom bu ñu defee liggéey ga ba ñoom ñu xam que lii lii ak lii ak lii est-ce qu'on a les moyens de de saisir afin de pouvoir décourager dissuader les gens de faire loo xamante ne ndax su dul noonu est-ce qu'on a donné les moyens à ces gens-là je pense que y a des approches parce que daaw rek 330 000 personnes ñoo ñëw Union 2022 mu nekk benn progression de 64 pour cent par rapport à 2021 924 000 demandes d'asile d'asile 924 000 en un an donc ñëpp ñu ngi dem de plus en plus mais pourquoi les parce qu'il y a mafia beaucoup de gens s'enrichissent là où on a des morts là où on a des à côté il y en a qui s'enrichissent xaalis bu dul jeex trafic de migrants la mais kan moo leen euh, est que liggéey bu ñuy liggéey pour xam leen pour jàpp leen dem di ci ba nga xamante ne de la même chose que ñuy wax Barça Barça de la même chose ñu ne do benn organisation ñii kii ñëw demee noonu c'est difficile pourquoi parce que c'est notre rapport que nous avons avec l'argent il est informel lépp lu ñuy def moom bëgguñu trace bëgguñu xaal boo waxee kon ba bii gars yi commencé wax ak yow donc y a beaucoup de choses yoo xamante ne mooy wax ñu ñun ñooy kan donc contradiction profonde qu'on n'ose pas mettre sur la table et puis on est là dinañ ko wax daaw wax nañ ko ren dinañ ko wax wax nañ ko daaw dinañ ko wax à les réponses mais bien sûr que c'est le cauchemar quand la quand la terre quand quand nous sommes 7 milliards d'hommes et qu'il y a 7 de, tonnes de production agricole on doit se poser des questions comment comment comment nos enfants peuvent-ils suivre le chemin des matières premières mais ça veut dire que ñu liggéey ñu mais noo mënee dem si réew boo xamante ne amul dara si suuf ay nit ñoo fa nekk mel ni yow weex rek lañ def am xel te yow am nga am lépp sa suuf te mënoo si def dara mais na nga xoolaat sa bopp. say paradigme lañ toog a xoolaat ko yow yaay kan kon loolu la tabaxee mais tout ça on n'en parle pas on est bon pour parler de ça on est bon pour mais quand il s'agit on a de l'or à Kédougou le far Sénégal de de l'Afrique de l'Ouest nan ma wax ban avenue au Sénégal ngay ngay dox di di dund or demal Anvers demal Amsterdam demal Afrique du Sud demal fu l'or vient d'où mais de, de, de nos pays Mali Burkina Faso Ghana et tout encore tous les pays commencent à tu vas acheter du chocolat tu vas en Hollande le, cacao vient de Côte d'Ivoire mais attends tu fais des phosphates tiens parlons-en les ICS l'année prochaine les Indiens c'est fini qu'est-ce qu'on fait on leur donne ça ou bien on reste C'est-à-dire c'est un pays d'incohérence. On vend des cacahuètes chinois, ils vont nous vendre ça sous d'autres formes. C'est-à-dire qui sommes-nous ah, Bien entendu, quand on a raté des politiques, pour que tu réussisses à faire de Dakar 0,3% de la superficie du Sénégal, 554 km. Je suis que si 18 millions d'habitants, 6 millions, voilà, 6 millions, 7 millions, Dakar, le Nous pouvons gagner au Dakar, je suis Antonoir, mais si bien région, là, nous sont nos politiques de développement 105 millions d'euros en 2021 pour yoo xamante ne de la politique de du fonds fiduciaire fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne c'est 105 millions c'est 130 milliards de francs CFA le Sénégal a 10 le reste sous-régional a 8 projets il parce que bu toogee fekk dina gars yi def ñu liggéey C'est faux. La direction de l'emploi, Moudoufal, c'est le moment de le féliciter. Avec des, ces, ont travaillé comme des fous. Ils ont créé des antennes, ils sont partis, ils ont créé. C'est insuffisant. Quand, dans une, quand tu dis que la moyenne d'âge est de 19 ans, ouais. ça veut dire qu'à 38 ans, 39 ans, non c'est-à-dire si kii quoi benn benn mat rek de. benn statistique la quoi. bu ñu nee espérance de vie Sénégal quand même dem na ba 60 ans manière. est-ce qu'on comprend. Mm. donc à partir de ce moment-là ça veut dire que nous ce sont des questions pointues qu'on évite de se poser. tubaab yi téye ñu et j'aime bien la remarque de Youssouf il faut pas Mbengue il faut pas l'écarter mm-hmm. parce que la terre aujourd'hui produit sept autant de tonnes. qu'il y a d'hommes sur terre et de femmes. Donc il y a une bataille qui est en train de se produire. C'est la bataille de l'eau, c'est la bataille de l'alimentaire. Et la bataille de, du, du, siècle à venir, c'est l'eau, mm -hmm. c'est l'alimentaire. Mhm. Et donc, bu ñu demee ba xam ne que ñoom sës nañu mais il ne c'est pas la première fois que le noir envahit le monde. donc on li ma bëgg a wax foofu sax mooy invasion boobu tamit une construction médiatique la. parce que en réalité ah, boo jëlee immigration sénégalaise la majorité de de ñi ñi migré mais demuñu Europe ñu ngi fii biir Afrique. les pays yi nga xam ne bi fa gën a ëppee. mi ngi biir Afrique donc loolu dafa nekk une construction boo xam opinion publique européenne. tu vois daf ñuy ci loolu les partis européens ak l'union européenne aussi. dañuy contribuer 70 de l'immigration. de l'immigration. boo jël. 80 yi ñu ngi biir Afrique gii sénégalais yi ëpp ci diaspora bi boo demee ñu ngi Côte d'Ivoire ñu ngi Congo ñu ngi ma ñu ngi Mauritanie ñu ngi Mali ñu ngi Guinée et cetera mais professeur ça veut dire man je ne pense pas comme ça mhm. parce que ça je le sais déjà c'est une information que j'ai mhm. j'ai dit que l'immigration clandestine est un fonds de commerce mais ça veut dire c'est pour tout le monde mais xam nga li am solo tamit mooy c'est quoi la contribution des migrants parce que loolu tamit dañ koy. dañ koy parce que ñi nga xamee ne ñi ngi dem di au péril de leur vie. nga xamee ne ñëw nañ jaay seen bakkan loolu yëpp mais ñooñu ñëpp ku ci dem au bout de trois ans de trois mois wala boo demee ba am li nga am. mais sa premier réflexe mooy euh, jàppale sa famille jàppale say frères jàppale sa yaay et donc voilà ce que j'ai dit c'est ce que je dis je dis c'est un fonds de commerce cest avec des acteurs autour qui gagnent la migration il y a les pays d'accueil sauf que les pays d'accueil reçoivent aujourd'hui de l'énergie et de la force très jeune pas forcément instruite éduquée et formée mhm. c'est là la grande différence entre des générations qui passent et ça c'est une faillite pour nous parce que et je le dis souvent il n'y a pas un pays qui se développe quand plus de 80% de sa population n'a pas au moins le, niveau de troisième secondaire cycle mm. secondaire suñu réew bi nañ xool loolu donc nous avons des faillites yoo xamante ne et nous restons très superficiels nous n'allons pas en profondeur tey le Sénégal fu ñu toll nii ne on a un problème parce que boo ko waxee ñu ni la il faut pas le dire on est sous-peuplé l'Afrique est sous-peuplée les gens le disent mm-hmm. dans un continent où tu n'arrives pas à exploiter ton sous-sol par Abraham Lincoln, si tu ne peux pas le faire, mais on viendra te trouver là où tu es pour prendre ce que tu as la terre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de nous faire. Et ces images de tous ces Africains qui passent, alors que les, euh, nous disons, 4 millions d'Ukrainiens, l'Afrique, la proportion congrue. Nous, c'est la portion la proportion congrue ñoo indien yi blanc mais ñoom ñoo ëpp fuuf fuuf fuuf fuuf mm-hmm. mais ñun la ñuy wat Mhm. nit ku ñuul ki la ñuy parce que c'est le moment ou jamais aussi de rétablir des axes géopolitiques mhm. la Chine est là la Russie est là ça veut dire le problème est tellement profond et nous on est là superficiel di toog di wax mais gars yi ñun ñun bu ñuy toog di wax nii et pendant ce temps on perd du temps à parler de choses alors que nous devons être dans la réflexion comment se fait-il pour te dire comment ces gens-là sont très forts on va vers une présidentielle au lieu ñu toog di ne les candidats à la candidature vers quel Sénégal on part est-ce qu'on va aller vers une économie traditionnelle pour aller vers une comment on va faire de pétrole et de gaz quel sera notre rapport avec la France pays boo xamante ne elle est là depuis très mu ngi foofu depuis très longtemps comment on va aujourd'hui faire en sorte que nos sociétés ne soient pas des sociétés de droit sénégalais seulement, mais que ce soit des sociétés avec capital, capital majoritairement tenues par des... Comment les hommes politiques vont nous répondre sur ces Là, on est en train de parler de ça. Ça veut dire qu'on n'a même pas le temps de nous projeter dans, sur l'immédiat. Donc on va se retrouver qu'avec des urgences. Mm. Et c'est ça le grand problème. Et donc la migration clandestine, pour moi, c'est un... Je suis désolé, mm. mais c'est un fonds de commerce. Aussi bien pour eux, là-bas, que pour des gens ici. ici. Et l'État reçoit des fonds consistants qui le servent aussi. Et ça, il faut le dire. Malal. Yes. Merci Charles.